ne di am mbégte teew fii tey ci Masaalikul Jinaan nee na fii nag wax dëgg yàlla nee na ndamu sëriñ Touba la nee ndamu sëriñ Touba nag mooy ndamu lislaam te it mooy ndamu nag jullit yëpp nee lu mel nii nag bu amee ci xolu Ndakaaru ne ci jamono yi mu am dafa mel ni nag boroom moo ko sàkku woon nee na place bii daal moom yàgg na fi nee na kenn xalaatu ko woon ne kon bu jamono doxee ne ba œuvre bu toll nii taxaw fi nee na mu am nag ci loxo yu mu jaar nee na ginnaaw Cheikh Saalihu Mbakke nee na yal yàlla yokk leeram ndax ak alaaji baara ak Cheikh Sidi Muxtaar nee nga xam ni ñoom ñëpp kat seen loxo ci jumaa ji nee kenn naatabliwu ko ne waaye nag nee na yàlla nag am lu mu berele Serigne Mountakha nee na magam yi ko jiitu nee na moo doon seen jëwriñ ci jumaa ji ànd ci nag ak mbàkk yu fay nee na ba yàlla def tey nee na mu toog toogaayu sëriñ Touba war a nag ubbi jumaa ji nee na kon kat am na tawféex bu baax a baax. nee na yàlla nañu ci yàlla boole nee na mbàkk yu nag ne wax dëgg yàlla ne dafa mel ni nag bu jumaa ji taxawee fi tey nee na ci xalaatam nag la jóge nee na keroog bi nga xamante ni dem nañu bay démarrer fee ca guy murit nee na démarré woon na de ba ñu gas nee na nag mu am